wax mooy dañ fi ñëw am naqar am tiis ndax bu ñu ñëwee ñii toog ànd ak man ma man ma jóge fii ñëw toog di secrétaire général SNTS ànd ak membre bureau syndicat SNTS yëpp ñi ñëw jàppale suñu frère ak suñu sœur yi nga xam ne ñoo nekk Expresso ci nattu bi nga leen dal natt bi nga xam ne teguñu ko feneen lu dul bëgg-bëgg kenn nit kenn nit ki nga xam ne moo irresponsable kenn nit ki nga xam ne li mu war moo ko defut parce que aujourd'hui mënoo nekk secteur bi nga xam ne qui est en pleine croissance yow bu fekkee defoo ci chiffre parce que bu ñuy évaluer performance du yem donc ci yow li nga def day yem ci secteur bi lu muy peser yéen ñëpp xam nga ne téléphone am na lu muy peser donc aujourd'hui entre euh, employé yi fi nekk nga xam ne liggéey dong la leen sant mënuñu ñëw gàddu seen loos erreur yi nga xamee ne décision moo koy def erreur yooyu moo waral ñu ne dañuy dañuy bëgg a jël lu mat cinquante per de famille cinquante per et mères de famille bëgg leen sànni ci mbedd mi ci lu dëgg du yoon loolu nag ñun duñ ko nangu li ci tax mooy dañuy joxoñ di ñu tàllal baaraam joxoon état du Sénégal parce que dañ nekk ci dëkk bi nga xamee ne mënoo kenn mënu leen a génne ci lenn secteur boo gis seen loxo ngi ci secteur des télécoms ñoo ñoo ko war protégé ni ñu protégé mooy yenn pratique yi nga xamee ne da ñëw toog xëy suba dina da def licenciement économique loolu du pouvoir discrétionnaire direction générale licenciement économique dañ doon waxtaane mm-hmm. entre délégué du personnel dañ koy waxtaane attentes de ce pays bu ko defee ñu xool quels sont les voies xam ne dañ koy jël mën a yombal liggéey ñi xam ne war nañu mën a débarrasser ñi war nañu mën a licencier ñi licencier leen loolu war a nekk waaye warta ñëw rek nga toog ba mu neexle rek euh, ki sa koll taxaw ne damay def licenciement économique loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba ba topp aussi mooy dañ koy wax ñu ne ñun dañoo nekk ci secteur bi nga xamee ni lu xuri kenn xuri na ñëpp parce que ñun ñëpp ay frères et sœurs lañ ñun ñoo leen gënoon bëgg a bëgg a bañ déggee problème bi parce que dañ xam ne lii ram ci ñax la bu ñëw fii la commencé fii la tàmbale mais xamuñ fu muy jeexee fii la tàmbale mais xamuñ fu ñuy jeexee donc seetaan lenn ba mu ba mu law mooy yow sa bopp yow euh, euh, bu fekkee euh, kii safaan da ñëw ci yow la njëkk daal donc ñun dañuy taxaw taxaw ne arrêté ne waa ji na arrêté ak ñun ñi nga xamee ni dañ leen a dàq ñi jalaat leen loolu loolu nag dañ koy def amul ci benn condition nañ leen jël ci nii wala nañ jël leen ci nele parce que mënoo taxaw état bi def promotion plein emploi naan nit ñi dañ war a jël ñu liggéey nga bëgg a prétexter un licenciement économique pour dàq ñu la neex dëkk bi nag dëkk yoon la du dëkk def lu la neex il faut mu xam ko il faut aussi opinion bi xam ko xam ne lii moo xew Expresso que ñun ñii nekk seen wet ñu ñuy nekk ci secteur bi vraiment am na ci ay jéego am na ci ay am na ci am am na ci ay am na ci action yi nga xam ne ñu ngi koy waajal te danañ ko def incha allah loolu moom moo nga xam ne dama koy wax maa ngi ci jégalu bu baax. dañ fi agsi am naqar gu metti parce que foo dégg rek ñu naan sa nawle travailleur dañ koy dàq da ngay am naqar donc ñun tey en tant que responsable nekk ci biir UNSAS nekk itam double casquette itam nekk itam secrétaire général adjoint au syndicat national des travailleurs des postes et télécom ñu ñëw fii ànd ak suñu camarado Expresso yi nga xam ni fan yëpp yéen a ngi leen di dégg ñuy wax ci biir ci ci rajo yi wax ci presse bi te yaakaar naa ni directeur général bi nga xam ni moo fi nekk moom moo waroon donc orientation bi moo ko waroon joxe waaye booy seet bu performance day am bu bu yokkutee day am bu koom-koom day am liggéeykat yi nekk fii ci biir Expresso ñoom ñoo ko fi indi te bu ngeen day seet bu ngeen xoolee rek xale yi ci gannaaw xam ngeen ni ay xale rek ñoo fi nekk donc te xaleel liggéey moo ko war liggéey la war a am tey ji damay wax chef de l'État ci boppam moom moo doon wax ni day recruter xale yi xëyum ndaw ni kon nag tey war na xool lii ndax lii bu ko xoolee xam ni loolu àndul ak lii nga xam ni moom lay wax donc daf ci war a jóg au conseil du dialogue social itam war na ci wax ndax ci entreprise bu buñ ci dem dialogue social dafa war a am dialogue social amul donc moom da ci war a intervenir directeur général bi amul droit di dax ay xale di dax ay liggéeykat te du ci waxtaan ak ñoom yëf yi dañ ko war a teg ci taab kii war a dem kañ ma moom moo war a dem ndaxte moom moo amul vision pour Expresso waaye ñii fii liggéey ñoom ñoom ñoo xam ci lekk ci biir Expresso ñoom ñoo apporter valeur ajoutée ci biir Expresso donc ñun dañuy ñëw tey wane suñu ànd ak ñoom te dañ ci ànd ak ñoom ci seen ay plan d'action dina am ay yeneen plan d'action yu am nga xam ne dinañ leen jàppale ànd ak ñoom ndaxte yëpp yi ñu ñoo ko bokk ñoo bokk ci secteur télécom bi